jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jërë ngeen jëf mbokku internet yu 5M TV Sénégal tey jile mu yemook juma fukki fan ak juróom ci weeru septembre atum 2023 xibaar yi ñu daal di koya tàmbale ak lu ñeel nag ci parti boobe di Pastef ginnaaw gi kon ñooñu Ousmane Sonko yi ñu ni ñoom duñu nag wann benn yoon li nga xam ni jot nañ ko dégg rawatina nag ñu ni dañuy tas parti bile ginnaaw formation politique bi nga xam ni am nañ ko ñoom ñu ni kon dañuy jokk sàkku rek ak cour suprême ginnaaw gi ñu wax nag jëm ci li nga xam ni moom la ñu taxawee ngir nag daal di tas parti bile ndax fanweeri fan ak benn ci weeru suliet boobook léegi kon waxatuñu la ca jëm ginnaaw googee jàpp nañu nag ñu bari ci ñoom loolee duñ ko nangu ñu ni kon booboog léegi ñu ngi daw ak dàqeek mbir mi bëgg rek jokk ca haute juridiction ngir nag ñu daal di wax ci mbir moomee xibaar bi nu mel lañu ñu daal di fësal suñu naataango yi di waa source a ñooñu ko xamal ci seen xët bu njëkk tey jile ci aljuma ji journal bi di ñu xamal ni kon Ousmane Sonko mu àndal kon yemuñu fii benn yoon nee nañu daal dinañu dem rek ba mbir mi daal famu mu rek lu mu am jox leen ndax loole dinañ ko lijjanti ba tey journal bi di ñu xamal ni kon fi mu nekk ni teguwuñu seen tànk lu ñu bëgg kay mooy ñu daal di rek teggi dogal bi nga xam ne jël nañu ko ci bile parti ndax moomee duñ ko yemale fii te Cour suprême dina wax ci mbir mi.